comme nous ma ko waxee sànq ci ci tubaab français je crois que as euh, ay débat individuel voilà, ay sentiment personnel je crois que amatu fi place euh, équipe nationale noire, wax es capitaine que capitaine lu may le a ñaan yàlla que ma am 23 capitaines le laïeur je crois que débat il il faut pas que nous indi qu'il y ait individualité tay débat débat collectif Si tay voulons gagner, gagner faire affaireu capitaine do faire sélectionneur do faire joueur do faire fédération mais ñun ñëpp la. lolu c'est important que tay sélectionneur de équipe nationale moy dem CAN aller aussi Cissé rek lolu c'est important donc brassard capitaine bi tey muy Sadio Mané muy Kalilou Koulibaly muy Gana muy Salif Sané ak ñeneen ak ñeneen pour man lu gëna am importance moy que ma am équipe bu mature équipe bu responsable ku nek xam bu ñuy paré di préparer seen bagages di duggal seen bagages seen sac pour ñëw fi ñu xam lan mo leen di indi fii loolu moo am solo mais tay kii mo sol kii moo euh, euh, brassard capitaine bi kële moo war a nekk nu entre euh, capitaine loolu amul solo je crois que aujourd'hui euh, brassard capitaine lo xamné le fi fii lañ koy man takkoon 2002 mais sama wet dafa amoon tamit ay potentiel capitaine te foog ni que le fait que ma takkoon brassard bi amul won ben problème ci ñeneen yi parce que kaddu bi man monopolisé wu ma parce que man ma doon capitaine bi waaw amoon na yeneen joueurs yoo xam suñu amé lu ñuy wax dañ koy wax loolu moy démocratie ci biir groupe di leen ni que vestiaire euh, lu lu lu lu doy war la il faut que tu nekk ci vestiaire pour xam lan mooy vestiaire souvent nous ñi des wax problème de vestiaire mais je peux leen wax que heureusement que nous avons des problème de vestiaire parce que problème de amul vestiaire ça veut dire que équipe de copains est nous du wax kenn dara ku nekk mën nga tardé mën nga wax lu la neex mën nga def que neex non c'est du mentalité gagneur je pense que tey bu de problèmes problème vestiaire boo leen demee Maroc bii am des problèmes problème vestiaire de demee France des problèmes problème vestiaire donc pour moi, euh, tout ne peut pas être euh, tranquille dans des vestiaires. Vestiaires, il faut que parfois, bah, a des difficultés. Mais comme je dis, lolo football bi moo moo tax parce que ne bëgg pas gagner. donc euh, tey bu ñu fi nekk di xëccoo ay affaire affaire brassage quoi que lolo, lolo du débat euh, tey Cheikhou Kouyaté mooy capitaine l'équipe nationale le Sénégal Lolo, il faut que mu leer ci tant que mi ngi député, moi mooy takk brassard bu fi nekkul nag Sadio Mané dina jël brassard bi mu takk ko Kalidou Koulibaly mën na ko takk Gana Gueye mën na ko takk Alpha Ndiaye mën na ko takk ñeneen ak ñeneen mën nañ takk brassard bi kon pour man loolu du débat voilà ce qui est important c'est que ñëpp nañu pare pour justement que lu ñu bëgg a dem wuti xol yi bokk ñu tapé xol yi ñu ba nekk benn pour justement dem gagner lu ñu bëgg